mbirum sëriñ bi jàpp njaambure la ci war koo xam ni kii jàpp ci njaambur du mucc ci lor ngirum sëriñ bi jàpp njaambure la ci war koo xam ni kii jàpp ci njaambur du mucc ci lor kuy woor kay julli ak koo xam ni def ci cëlëg maandul ci ñoom ak lañuy def yow te sàmm sa mbir ak sàmm day sàmm sàmm sàmm jur gi yor sàggan ki sa jur ba sa jur ku xam lu ko jar bii rek loxo làmmiñ tànk nopp ak gët yii rekk rekk di sa dee ci farlu bu wér bul gës mbirum kenn bul wax diw ku xam lu mu yor ciy soxna tax na mu day kuy gëstu doo kañ yor xamal sa bopp sa waa kër ak sa bu rafet njegam dangay lim limal say soxna ak ña nga yor ñun ñépp noppee nu war tey fas ci nit lu rafet tey soxla waa sunu mbir wëllis mbiram ku ne fa wasaytu kenn na yar boppam te yar kam yor ku saytuwul kenn yar boppam te kenn bañ a ku xam wér na ko wax boppam te wax ko ñu ñam ku nekk mbootaayam ak boppam la war di defar ku am njariñ na te jox boppam te jox ca ñu ñam te jox ca képp ku koy ngéejoo karaasa ka mayal sa bopp ndigal ak gaaya jàpp ci yow bul may ndigal ku la naa man saytuwoo sama mbir kuy bañ nga dig sëriñam muslul nga dig sëriñam tollul fu nit tollu kon doo lor te du la lor alin moo mama nax ndaw nax na jóob ko xam ña doon buur ak i baadooloo ti sax anuñu ña daa dawal seeni paste jàppi jaamaka mës di jaayi jaamaka jiital moo ko xam anuñu ko xam ña daa xëy di wër njar fukk ak ña fi daa xëy bis tojub dëkk ñuy jooyoo ka daw anuñu ko xam ña daa tëggi junjum woote ñépp di ñëw ak gaa ya baaxee bi ko ka xas anañu moo jaañu mbooloo ya wër gàddu seeni fital di sang kay sang tey jii ku xam anañu moo jaañu daa dox wëndeelu yi xaree ka wasal akay bi ñaaroo ko dàkku nit ku xam anañu ña daa reyu nit a kay reyloo ka jekki ca kaw duxulli ay gëtë kay xoolee ka bew anañu ña daara yanteeka woo aw nit ñu koy ngitirim di diglu seeni ndigal ñooñee ku xam anañu ña daa bañanteeka bindanteeka yooli sëriñ akay añaan aka ñaanu ay ku xam anañu ña daa weranteeka bojjantey ko bara di xuloo dina nakay mandi moo ñooñee ku xam anañu mu yàlla moo bon ku koy def ak mu jëm du rafet mboolem ña daa lu baaxul kenn xamul anañu ña doomi buur ak i baadooloo ngi bokk ni mes ci suuf si gaaya rëyoon ak gaaya sew anañu ñu bër te sant te wut jaajëf fa yàlla ju wér bul bokk mukk ci ñii neefaa ku xam anañu maa ngi di tuuba di mooy gii di santa di saa may gii di laajati ndolle ndaxte lépp a ma war sëriñ bi man maa di moykat yaa di jéggalekat moykat bu am jéggalaa ak moyam du ko jéggal ma tey bépp mooy goo ni maa la ko moy te may ma may yu ni xos yuy wéy di wéy ni xasar yaa tey tujaabi yaa fii tijji bunte ka tëj tëjal ma buntu bu lor xartee taaw din ya yaa taytu caabi yaa fi tijji bunte ka tëj tëjal ma buntu bu lor xartee taaw din ya tëjal ma it bunti say mbir yépp ak sunu mbir tijjil nu say buntu it bun dikkatee fa sa kër bun dikk mukkati nun ngay jàpp buntu di tëj mbaa ngay korose te naa saytaane lii dana la ñun danoo amatul tey benn buntu budul sa bunt bi boo ko dee tëj mbàkke luy sunu mbir ubbil nu yaatal nu ban bég may nu jàmm teree dalal sunuy xel te waxtaanal nu yow ki nu jur xamal ne kenn amatul kët jënn ndey ju mooy mbaa benn baay it budul yow far nu boole defar mboolem lu bon lu nu daa def mbaa nu daa ko xalam fan dëgg saw tur ba tey jii lépp boole ko fa man far mu koo far mu naagu jël naagu gu wér ngir képp kun mos a gis jëlam du waaja nga fa gaalu tojal yàqu lu dex ngir du tax mu xetaw du tax ku mos dex ganaa dex gi ku xam lu ko jar te xam ne yow ëpp nga dex ndaxte sàkk nga dex ba boog a def sàkk dex buy dox di feesali ko te xam ni yow ëpp nga dex ndax te sàkk nga dex ba boog a def sàkk dex buy dox di feesali ko sakkem amul yaa di géeju dex yu rëy la wër yaatut bu dex yi ba genn dex du jeex a kese njëgam dañuy bon a bon bay rew ku daa bon a bon ngay baax a gën a gën bay gën ku daa amutu xam nan ne a a suuxal ko ja suuxal nga mboolem ku bon mboolee bon bonamit ku bon desul mbaalu bon yow daala def lawa suuxal nga mboolem ku bon mboolee bon bonamit ku bam desul mbaalu bon yow daala def lala war tilim sëful dex te xam ngay géej a ëpp dexit moo tax ba muy yileen muy muy boo dunu lor sëriñ bi dàqal nu biir ak biti lépp lu nuy góoral te lu nuy dégloo te yaa fa yax musal nu faw ci xëccoo lépp musal nu ci mboo leen lépp luy ayibal xol xol ak lu koy taxa nax danoo doole moo tax nuy moyoo karagal faral tuxal lu nu jaaxal mbaa nga jañ ko ci paf sëral nga buy sunuy xol ak sunu yaramit te faj nga aajo yi yépp ak yi yal na nga sax li nuy bañ li nu jaaxal lépp yaa ko balan li gën ci nun ak li nuy wut lépp yaa ko jox wëtal nga seytaane leeral xol yi far sunu mer xëy faj la tax sunu xol daa waree ka wañax mu sàkkooti ndimmal ak wall man ci saafang bii dul naxee kay ware ma sàkkooti ndimmal ak wall man ci saafang bii dul naxee kay ware du wax mukk luy dañ du nax kenn it du war kenn new doj la léppam ngëre bu wallam nga dikkee nu jag yal na ñëw te teg lépp luy sonle ak luy lore sonn jot jópp raw jópp ngir lafam saa su duggee taxaaram sori te baaxam gi moo ëpp bon gi ci nun li lee tax ba nun nit ku nuy ter teri danoo xam nun nii boroomam da koy xaloorus ci nun faw ngir wëllëre misal boo duggee ànd akub xaj bi ñurus xaj ba ngir yow nga fara koy tere lu dul jàmm ak mbég asal duutu am sunub sàngamam lépp gën fee gore nanuy seenu ndollem lu dul jeeki mbég ak wu yiwu nit ñépp naa moo bari sëriñ bee gañax noo ci ndimmal lu wéy lu dul ànd coono ak kër këri sëriñ bee gañax noo ci ndimmal lu rëy lu dul ànd ak coono ak kër këri jañax nooti ndimmal lu ànd ak ngërëm ak jaggu xel masalasee yare yare sunuy mbir na jag ak sunuy kër bu wér nu jag faw wu doy lul nu wëllis bëre ku nuy dëkk daanal ku nuy xas cawal ku nuy yaffaral fil ku muy ter teri ku nuy sopp soppal ku nuy fay fayal ku nuy walwalal kooka muy jër-jëri ku nuy sant nay sant tey yokku nag ku nuy gott nay suufe tey lar-larit ku nuy yéene laf na far loola mu diw yiw mu diw ay ku mer loo mere damaa jàpp saa bopp ñag rekk man te kuy mer ci am ñag xaloo naa ware ma jëm man te ca mi dem mépp te nag mépp mbër jël ndamal mépp réew ma jóg man te mbër mi dem mépp réew te nag mépp mbër jël ndamal mépp réew te del seeki ndam nag yu dul jeeti far ilif gaa daa fuu yakay doxi di lu dul gëm ko ak tagg jëf mu jëf du mbir waaye xuuxuñu yeewoo ka joxal ban ba say mbir tey ci waxam defar yëg ni moo gën ñi wéy ak ñi teew du maasum ña ngay dégg ak ñi nga gis ku koy toppandoo léegi tam far ko biiw liggéeyal na yàllaa ci xejjam baam la muy wut ñu ngi nekk wootee ka yeew ñu ngi yeewu nit tey yiwee kay jépp lor tey jubal géewi géew mayam gi mu am may la goo xam ni du njët téq man dib laram laa mi seew mayam gii la tax bokkul ak genn may da def sàmm koo gis da koy ñaani meew ku jël ñaani meewam ba ñëw nag bu dee defub sàmm am naw la yaa ko yeew sëriñ bee di xéewal di ngën gi garab kuraasu guronam dal di far leewi leew te noon yii fi moom di wut gudd fam akum mucc faw ak ndam ak te noon yii fi moom di wut gudd fam akum mucc faw ak ndam ak lamat dëgg du am soxna ak fas wu du jébbal mu dul dog du lekkit ba suur lamat dëj du am soxna ak fasu suur du jébbal mu dul dog du lekkit ba suur lamat dëj nga gis yàlla ak sab ñu sax dàkk foo jëm ci sab xol bu wóor lamat dëj nga xëy gis sa xol set welas te bëggul lu dul yàlla lii baaxi góor lamat dëng xëy gis sa bon gii nga bon te naa moo may def ba gépp góor lamat dëng xëy tuubi mooy lii nga mooy di réccoo ko loo ko daw wépp toor lamat bég sa bët jëll ko gii di wéy di jëm àjjanaa ci aras lii ka foor lamat dëng nga ku nit yow di ree te sab xol bi jëm nag ca yàllaa buur la mat benn gis ngay wax ak képp nit te jox nag sa xol yàlla kay ngën gi buur la mat ndam nga xëy ëpp laf képp nit te doo tax digri reeka daanee ka dóor lamat ndam sa kër gi ni dell ak alal aku nit te doo yàq ku yore seen ngóor lamat ndam bu deefee la koy bugal ëllëg gaaya daa mooy nga war naaru góor la mat ndam mat mbég ëllëg mat ko tey bu wér yàlla nan boole yi am buur murit moo di koo xam ni bëggul dara sëriñ moo di koo xam ni ñëkkul dara murit moo di koo xam ni bëggul dara sëriñ moo di koo xam ni ñëkkul dara defal ab sëriñ baa nga def am murit ku dul ab sëriñ doo murit doo dara fexeelum murit yow baam am murit te loo def lu dul lii du faj kat dara ku tëb bëgg dal ci cëriñ jëllaat murit doo ko mat kat te doo am dara ku jéggi murit dem di yootub cëriñ dafay ñàkk yiw ñaare am til dara ku dem ci cëriñ faw dox murit doxal ci murit boo bëggee faj dara lu kuy rëy rëyub dàtt ab gif la woon sëriñ di murit won bu moomu dara sëriñ day bawaa ci murit dib sëriñ njëgam lii amul doonagul kon dara wasam ndab dalay bëgg taa am xanaa la ngay def ci ndab mat la wax kon dara ndafam bépp lar bu xolam bëgg lëf lu dul jëmmi sa yeyoogul dara ku bëggul lu dul yàlla dëkkëb xolam narus yàlla seetub xolam gis dara narus yàlla seetub xolam gis cëlëf lu dul ak cofeelam gu tëppul dara ku sab xol ketul wékk yëlloowu laa te dee laaji kon yàlla yow sax dara wutal ndam mi dal joxu ñam wu doy te ndam lee daa bu bëggul dara ku bëggul lu dul yàlla dee sa njariñ akum mucc dib lar bu ñàkkul dara damay sàkku nag ndab aku ñam fi yow ki am ndab aku ñam te bëggoo dara ku dul yow amul ndab amul wenn ñam toroo soxla yow lëf te ñàkkoo dara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 defar sa xol bi ba xol bi ler lereeka melax moo gën di wut néega kii sàkkat yu fatt tarak ña dëkke wantaaxi kaw tey jëf lu bon ña nga tey fësëg yañuy caw yi yar footol lu dégg farak lu kër gi jag-jag bu ruugi rot nga génn ko dem yow rekk kenn du la toppit men na xel du ko daj tërikaat tabakan jàppal ma àddina war te daal di bala laa war kon sa mbir du fi lëj am wéttal ak ñàkk wéttal waa ji ñoo xala yam buur ak dagam yamu àndal ñoo xaloo yami muj buur ak ña koy topp ñoo yam képp ndax ku ci dee nitum muccim kan mu xat lëndam ba faraw ni kërëj njëgam danga bëgg am wéttal wudul xala dañ tijjil sa xol bi de yow tàbbal ci yàlla te tëj loo tëj ci sab xol lu dul moom it mu xëy ni la nit koo fi gis dana dee ndab loo fi gis dana toj ñee boo fi gis dana tas kër goo fi gis dana tas waa kër ga mu ji tas addina mbég du ci xaj addina kër la gu bon ngir mas la jag te du jag ku aajuwul lu jagam say aajo kenn du ko faj yàlla ngi yor lépp lu jaamam di bëgg ak a wut moo dàq fab loola dal koy jox pasaasa mu yor lotul ci lëf waane mboolem lépp luy xala am sakkar na koy saaki waxtoo kii sabab yu ko jur mënul na bis boo jógee yow mii di tàmbali mbay mu dal di màggal sa mbay moomee ca bis ba mu ñor mënul na bis ba nga juddoo it nga tol ni sa ndey te dal di tol ni sa bàyyi sëkk nag bala mën na laa dal di fa teg ca àjjana jee ba xam ni doo dox ti wopp ak dee ki tiisa ki na laa dal di fa biit teg ca àjjana jee ba xam ni doo dox ti wopp ak dee ki tiisa ki na laa dal di won firdaw si ak ña jëm mënoon na laa dal won sa mucc xamal la sa mbir te man na laa fab ci saafii teg ca kaw ña ca kaw nga mel ni ab jant mboolem ñépp suufe la far te na laa daldi jox tey jii sa mépp mébét sa xol ni guy te dootul war wareeki naqar te na laa daldi dàkkul lépp loo gërëmul ngay mucc kay musle koo jëm far di mbër mu ñu far yii yépp man na ko mën naa def yu dul yi yit loo gis amul nag da koo soobul te xam ko bu wér bul bëgg yow lu ko soobul bëgg loola du mbir ku bëgg lëf lu ko soobul ñàkk ndam si yàq ndegam dangay bëgg bëggal yar bu mat bu rafet bëggub yaray mbir wutal ab yar te def lala ku ñàkk ab yar mu sug yar faw ab yar a gën raasal ma ab yar ba gis koo gis nga sàkk te fa telef daab yar lu dul santum ndogal te gërëm ab àtte nan fora ab yar te jàpp ko yo xam naa ne man xer yi jën yaa ngi may toroxal xer yaa ngi nii di taxaw jën yaa ngi nii di yenu te benn xer du jógit fam samp aw jën itam du jóg famuy yenu ay nan fam ndigal li yenu sagan bàyyi xere kii jën gën la fa waxuwul moo teen roy xer roy jën yi te dal yenu jën yaa ngi nii yenu xer yaa ngi ni remm taxaw ñun noo ngi lay sempi kooke yen ni yenu te xam ne yàlla danoo yen la fi yenu nu la fi te topp lan yenu loo wërsëg yu moo ko yenu nu tànni sunu yen yefee dem naa ko yàlla yenu seen bi ak naa ko dolli say nag te yenu ku nekk nii naa ko ay yokkal ma li ma yenu tey xaaja xaaju sa yam sew mu door yenu xam li gën gaa nan jóg tuubi mooy yinu mooy man Babacar maa ngi lay tuubi te dal yenu ngir yàlla mooy du ko lor ak topp it du ko faj ku tuubi rekk mu jéggal fa mayam ga yenu man yàbbi am mooy te sax ak topp toppale wet muy wex naxat te diisit gann buñ ko yenu yenun ndigal baa ngi nii nan dal di fab yenu nun te tuubi nag sayu mooy wii luñ ko mas di yenu buñ yenni kooti ndigal bu nopp looti ndigal nan def ndigal ni nu def suñ bopp yenu ku ndëgg yàlla di fab sab yen yenun la yenul yanam bi kon te mu fam mboolem sa yan bayanu ab lar bu dëngee te tuubul sang sànni mbiram buy lar bu jub sang boolee kiy mbiram te yanu alhamdulillahi yi waa ngeeti nan faba fab ab jëgg buy dox ba jëf saakuy dugum na yanu ak réere maa fi daa bojjaame kay di weesu daggaaki dex ci lii ka doy kiimaan te yàlla won na ma dex gi won ma dagga ji nag may roota kay bojja kay kolkol di fas aka naan ku daa nasal aka tappaatoo ka teg ndekehoo ci dex la nekk gu rëy guy fuura kay baawaan alhamdulillahi yeewoo gën lu dee fi mébét ku yeewu doo ba sa daggay xiifa kay xaaraan sëriñ bi dex la guddul fer mukk dàggala it fi bokk di dund ak jàmm bay raama yal fi sax faw ak moom ak ñi sant ci ñun ba xëy ci ñoonam yi dim ndaamaanakum ak moom saamaan noo ngi di yaakaari cant ak dolle nag ngërëmam ak jaayu tant yu dul jëm mukk ci caaxaan noo ngi di wut barke ak barke la fukk bari laf ak mucc faw ci caaxaan ak ku def caaxaan noo ngi di musul ci lor nit ak ci nit ku nu lor te na nuy gaa yi jël ndam ñépp naa ñoo daan noo ngi di daw bëre ak tuwaañ ak lu koy waralit tey sàkku jàmm ku yiw ak ndam lu xëy saawaan ma dolli cant yi suuloo suulu teg ko fi kaw ñu xam ne man nekku may jàmbat ak ay ñeetaan cant ngërëm dong laa def kenn gëñeetuma lëf maa ngeeki dàggaa ki daaraa kiim mayeg kiimaan cant ngërëm dong laa def kenn gëñeetuma lëf maa ngeeki dàggaa ki daaraa kii mayeg kiimaan murit bu soobu nga man jëm ci ngën ji barab boo xam ni bii boo ca yeggee jot ci lépp ngërëm murit bi soobu nga man jëm ci ngën ji barab boo xam ni bii boo ca yeggee jot ci lépp ngërëm boobee barab ku ca jëm day jëkkatuu bi moyam te génne àddina jéppit ci xolam soog a dem ku saytu mooy gumu tuubul mbaa mu yëg ci xolam ak bëgg àddina kon dem mët la wékk xelam dalal di jóg wacc loo daa lekk ci ñami mooy ba yépp set nag ci yow ngay door a jóg di ca jëm na dee fi lekke lu bon sangoo yu bon yu xesew di jëm ci buur ak naa moo jaaku xam barabam dindil lu bon li ci yow summil yu bon li nga sol te dal di jàpp sa xol sellal ko ak sa yaram te jënd gëttug cofeel ak aw ndigal diwa diw ci xol bi ak cër yi sol yéere yi ngënee la ki ndam te jam ca buntu ba yóbbaale bi yar ak rafetal akuk rafet njorta ku muñ ak way bari gëm may gaa yi ba ab yar sàkku seeni ngërëm yor seeni dal ca kaw sànni gi bari jëm may gaa yi ba ab yar sàkku seeni ngërëm yor seeni dal ca kaw sànni gi bari jëm def leeni sang ñu def lar musal la ngërëm ubbil la bunt bu kenn dul dox di foog ak a xam ngay tàbbi nag seeni bunt ak seeni xol di gërëm ñuy sant ngay gën a saf say nawle yépp xoram futal te daw ba sa digg ak sab sëriñ deme nii bu laaj bi mukk te jàppoo faw lépp ngërëm bu bul bona bon yow ba tax nga ni man yaat na maa dem ca buntu bi yàlla ngir ni ma mel murit di bul bona bon yow ba tax nga ni man yaat na maa dem ca buntu bi yàlla ngir ni ma mel loo metti metti bonit loo def defit lu warul jëmal ca buntu ba tey donganta kay rafetal buntam ba dee fu ko ubbaaxam ga ñëpp a teyam ku nekk lay jox ko ñàkkit booba moo fa demul noonoowul ak kenn bëggul kenn ndax te wutul soppeeki bañ bu la noonoo yaa noonu asal moo tedd moo doy lu wëllis ay xarit aki bañ santaane ne yiw ko bañ bon kuy defit mu teral sa def ju bu muy tax yow nga naa gu ngërëm sa jëf ju baaxit bu muy tax yow sa xel dala dal njëgam dangaa defu ay tuubal ñu jàpp ko far njëgam dangaa defu yiw santal ñu jàpp ko ful ak toppaku mooy ku koy def lay musal ak a lor nde yàlla doylu na wëllit luy loree musal ab lar lu muy moy bu tuubee moy gamel ni moyul lu jëf jëfu yiw bu dee naw jëf jamel ni jëful boo taqatee na nga daw yow dal di soobu ji dex te boo jotee na nga moytoo def lu lay tilimal seytaane day wax boroomuk tër sa tër bi du set day wax boroomuk setit dootoo tilim xëlamul seytaane day wax ku bon yow tuubi faj ti ba noppi nag naa ku baaxit kaara yow ni nga mel bakkan bi jàpp ko yar ngir sas ngonee jubul ku saytu sas ngone boo jàppul te yaram du jubal buy lekk boo terewul day lekk lekk ba fër buy wax te fem moo ko it day wax ba far la la jël te buy nelaw boo ko yeewul day nelaw ba fajar mbaa jant fenk jawal ab yar mu yeewu ca njël bu topp mukkati bànneexam te dëgg fa bal ab yar bu dee jàdd ngay caw dégg nga loolu ndigal loo sant muy bañte boo koy caw mu def ko bu gën bakkan mënul tëliwul loo teg mu nangu tegal loo saf mu yóbbu safal loo xañ mu ñàkk xañal dalay mébli fi dal ak jeesee ki yet te du dal loo bëgg def mu ni bul def loolu kon te ma dee te xam ni kat boo defee it loola lëf du ko dal dollar mu mokk bu mokkee lépp jag loo soxla kat moo ko yor buy mokk dee fi lafal bakkan bu koy baati yow muy daw di mam ma këwéy feqal bam ji boo fequl mu lor la asal day mam kay daw di wéy jëm nag ba nga sib lu bëgg bëggati aw xel nee ko mag du dawal déegul bëggam bi mu dang koo xam ne nee na ya gobam bi sànku ji bul jaabal waral te doxal tey gas ngone ngoogu boo saytoo te ko mu te boo ko baa rekt ak boppam du jub du jubal te xoolakum njàpp ak tuubak sikar su bari tey dam sab seeta kay daw gaayi lu bari fu marsandiis ak jigéen ak seeta kiy teratan di nekk boo ko mënee yow dëgg dee fa sori barab bu ñuy nekk saytaane nga foofa su rëy te boo fa dee xand it dal fay loroo ka lore njëgam dogal ba dalaa fa boole ak ñi nag jàppal ci yàlla di musloo kay yeloo ka bu kenn mbaa lenn tax ngay génn mukk ndigal bu kenn mbaa lenn tax ngay def lu dee fi tere loo bëgg bay ba ndigal loolaa nga far ci ndigal te loo ragal bay murit ci mooy la nekk gore sonal te bul sonle yow baaxal te bul yabe yow xaaral te bul xaddi yow jiitul te bul sengeru santal te bul damu yow sëggal ñu war ci sa kaw nooyal ba far safu dër bul jàgg niw fa pare warlul te bul warle lëf nangul te bul tege lëf yombal te bul jafe it nekkal di kuy defare bu sikk bu ko bañ bul yàq deramit jàppal sa xol say cër bul waroo ko wore saytaane baaxul balaa am jàmm dox sa digg say bokk ak say xarit ngir bëgg laa soxore nekkal bu wér yow di jaamu yàlla waxtu jot nekk nag di liggéeyal sa sëriñ lu bari nan lu doon kenn sa kàttan daan ngërëm la lu yàlla def nag nga gis doo gis lu dul la mu def moo daw lu ak mooy dab lu jub ku raw la mu daw nang baa mu jot la mu dab yàllaa xamal li defa xamal li kenn deful la yàlla daa la fi def moo bind jaamam bu nekk ak jëpp ju mu jëf ku dee fi bind du def lëf ndax mënul dara sax ka bindamam lépp tey def bul meree ci ku dox lakay merab dof akub dof ñaaru dof lañu far ñaanal ku dof ba mu wér moo gën di reeka suruf footeeru ab dof te man koo faj fajal ba mu wér njagam mënoo koo fajit ñaanal ko mucc ak yépp ab dof teyul la def ngir kenn bëggu dof ak ndof ndogal la guñi te nit du kenn mu sax koo seeru jub fasoo koo seeru baax a ko saf koo gis mu def nag lu bon saytaane rekk ko fekk saytaane baaxul bu dàqee nit ba koo kële raw mu dal di wàññiku ciy gaayam di yoota ka gëf day sàkku buntu bu ñàkkee buntu fawu ci yow mu sàkku buntu ci saw nit waande yàlla du tax day jéema buddi garab buy lottu dal garab ga ndax xob ya rot as lëf mu yóbbu ca lëf njëgam dafay bëri te moo seeti gaa yi nu mooy xëy bon yi bon la nuy wut laf ci maye la ñoo ngi fi mbër mi nu doy ñoo ngi fi mbër mi nu saf moo boole mbër yépp gor yépp faral ni xëlëf ku nuy jëmit bëre kay sóoroo ka yab du nu saf ngir noo ngi làqu fi mbër moo xam ni man na ko def moo nuy tegal ku nu yàpp moo nuy musal ci lu bon moo nuy jégal ba nu bég moo nuy defal du nu def cant mbàkke bu dul day mukk tey mbóotu neexum ndox te gàtt jige mayeg deret maye attee nañ mayes mbëriyam ci yow ki waa penku ak waasoowu faf di bége dañul nu may nuyu doy faw ak nawet bu rafet bu gën nawet yépp ak mbooloo yu nangu tege sarax mu gën gu ñuy xawtoo te dee su ko teg ku dikk duy feesal dem te doo fa nege ñun ñoo ngi fii nga teg foo teg sa koog bu fa nee xëy benn fekk nga fig wetam di tege aw fepp daawu fi am aw fepp ñàkku fi tey fegal nga njëg faw ak luy loree ka doge xajal mu rootaami fawit may nu ndox munu doy tawat bi ñëw far ko tey gay dikk far ko fe say may na ëppe di nun sa cant ëppe foofa kay wéya ngi mboolem lu bon bu mu ñëw mboolem ku bon bu mu ñëw nawet yu gën ak ñu gën ñëw nuy juboo ko di te def nu donga yu woomal yoo gërëm yu la gëm lu gudd fan rafetu mujj may ku yombu la ngi may nooti nun ñépp ràcc bu tal bu ñu sif bu bu sex rek te des xar a ciy mbég a ngi dolli weti nug kum njébbal ak sa te saa su jot na la saaxol bii bégee ka jige mu ñëw def ndànk bul yàkkam lee nga doyal mësay mu dul sewet ak waamee xaloo yami mbir lëtis judul dog dafay xëy benn rekk di def ku muy da def ndànk doo wóoroolu mujj di mbër loo am ci nit na la doy yow lépp loo ca amul doylul ma wëllis ko doy loo gën gëlee ma ki xam as góor dafay jàpp doy loo yàlla ak lu mu am na yàlla far doy la sa yi mu teg ci sa kër ku def ci yow faw ak jaambur defar na mu def ku jékki-jékki ñëwit yaatal ko wan ko sa ngor bu yootu kenn te bul woo kenn jéema la jub jubal ni nekk fi yow bii dénk jàpp ko yor ak sàmm day sàmm boppam sàmm jur gamu yor te fàtte sàmm yor ak seenu jurat la ca war sàmm te sàmm sa mbooloo mépp mucc musal te muy lor ak coono kuy wut lépp day muñu lor ku bëgg dagga du dootul fëgg mukka ki dex war naa fexe laxasoo muñ aw ndigal bañ a war bu toppandooti ku dul sam nawle kuy wuti kër bu toppandoo ku wutul lu tànk lëf du ko jar sayte nay ëpp mbooleem itte yépp nga sut nit ñépp am xel te gën cee yaatu farlu te xër yow boo xaloo rawe te ngaa boole naa jaki ker te ku baax ak ku bon lii moo rafet ci sa mbir daanaa wax yow sëriñ bi dëgg may maalal ak i murit ndekkeeku boobee damay jeexu ak lal bu dee bëgg mbaa muy wut lu dul ndigalal sangam boobale lar ab lar la buy jeexu ab lar bu dee bëgg mbaa muy wut lu dul ndigalal sangam boobale lar ab lar la buy jeexu nafam lu bari sant ab lar rekk moo matawut amaana ab lar di santut sang tey jeexu te sang deesu ko gis muy sant lar ba lu dul tàggoo ki soxla ku wax ji lënt day jeexu jaaraama santati naa ndax mbàkke yaa ngi ma yee ba maa ngi tuub ba jàmbat lii ma daa jeexu ab law di gomte de xëy jëm coola may la ko war buy laaj yoo la ko séenuy ndab ma ngay jeexu fas naa la yéene bayal toolum ndigal ba mu set te fàtte ay dab ba def nag lar bu dul jeexu bayal la rek kama war noppal la rek kama war ceexal la rek kama war dàkkul ma ak jeexu ab lar na muy sonalek sangam na muy lëjëlët sangam akay payu boofuñ mës dafa jeexu ab lar na muy sonalek sangam na muy lëjëlët sangam akay payu boofuñ mës dafa jeexu te ngeen ji lar moo di lar bay fàtte yoo la dab te man moroomi laram tey jajju kuy jeexu tablar di bay tooli sangam war na koo doy nan sant gaa yi te toobu mooy akub jeexu teblaat di bay tooli sangam war na koo doy ndam nan sant gaa yi te toobu mooy akub jeexu sëriñ di fan nan bay wi gaa yi nan yaru nag ku di ku bay daanoo kenn du la fab nan mokk tey nëbbu tey noppee kawe kilifa te waa juweeg kilifa doxteel ba gis ku ko yàpp njëbbal du lëf lu du tubi yar kun fa gis yërwul nan xam ni njëbbulu wut nan jóg te naani garab njëbbal yar kun fa gis yërwul nan xam ni garab bul daw garab ngir jëwex nan daw la koy gën wex garab akuk dee ngi nii nan fab garab ni firip garab gi moo di ndigal géegée di jàdd ndigal kuy muy ndigal danga gis muy waxte dee na ba nëpp boroom mi jàngoro ñuy jooy a kasam nay naana naa ni garab bum nit ba dee fi ko rob joom ku ko nangoo saafaraali ràggam nay sant sant te bum jëkkee xuloo ka xarab garab dafay gàttalu tànkam te nii waxit mbaaleem walle te walle bon du luy tax a jub muuru berul dammalub seetit te bul jaxasoo ak gaa yi ëddina saytaane ngi lay daba dab te nun sëriñ bile sunu diggante bu mu jige nun sax sëriñ bile moo nuy yore fi bépp barab ku yor sa mbir di la sonnee kay watoo ko musal yëgoo ko ko tuuboo it xanaa di bi tëb ak gor du mel ni nga mel yow mii nde gor bu amee lu toll ni fukki xasab delloo juróom xasab walat yéenee ku la may bët dee ko xoole lu koy ñaax lu koy tafe duñ mbaalee mu wan la sabab ku gumba làggi te fajkat faj ko nag ba mu wér bum deeti topp bakkan bay xooji reen ak i xob te fekk kat moo di rag loor ak lu bay xaw wér nga wax ko sab légét ba mu wun ni ngay xasi dut gàccee di waaju di jub jëm kaw di wéy ba sori ba tuuti dox di gëm ak mu far ni jësub yanam sëriñ bi musal ban yegg fam mu jëmi te daldi ni gatandoo kiy naari góor a ci ku xes ba soobu nafar gën yàlla ci yén wi gën di dalloo te nee faa dafa sob jaral sa ruu bi wutug fal dund goo falu gën boo faloo foo nekk la fu du fa jub say rakka ak say moroom ak say mag ak ku doon may leeni teggi na kiiw koo gisit ni gurub sa gërte bul si giñ koo rekk yow ronu ko ku nam am wurusu dex kooka bum dawalab garab gu nekk dafay am gerte boo ronuwul garab ga doo ko mosit raasal ma gépp garab jëlul pexe yi boole kookum ngont ndaxate nga kor aslëf balaa kenn jóg bul gaynde gu sax wurus wi ngay weesu ak xaalis bi ko defe te yow amoo dara yëpp jàppal sërëy bi yëlëb bu gaa yi dee fora kay raasaatu ak di xalab ba dellu ak seeni yëf ngay jóg di xaaraka lépp ku lay gis ëllëg ngay tàbbi naari di ser say nawle yépp di jëm firdawsi lii mata sib yéegal te nem moo te jàmbat garab gu jafe ku yam xis matt teemoo goro ba fa joti xëpp tey war ji mat na ma wax nag wax ju yéemu ba teena wurus baa ngi nii tees ak wurus ngi gaa yaa ngi nii war ko ànd ak aaja yu ku bëgg làq lu dootul génnatam ni limit te képp kuy tàbbi bum xoole na gëm ni gëtam wax naa ba noppi alal jàngoogu nan fa fa nan yeesalug tuubakum njébbal akuk bàyyiku tëggat sëriñ bii lu dul def lii ma wax sëfu ko fanaani jàkkaaka yar ay moo la kay talaxu murit bu yor melo wii waatal ni kenn yoru ko murit lu muy bari man man bay nirub sëriñam la war murit mel ni ak larkam sëriñ ba ja ko jigéen akub taalibee kub jaama bokk àtte jëkkër sëriñ sang doy naa soxla woo dagu ku geesu bis lëf lu dul sab sang yaa mataray ngir yaa ngi njaaloo te kuy njaaloo la gën rey ko ngir ji murit moo di bay yendoo ka gonte ka xëy di soxla sëriñ ñam jàmmante sax tëlu ko foo fekk kii nee ko yaa aw ngir ma dee fi wuti murit bu dul duy xamal seexam ba jéppi na ko ko am jëkkër deeti wut aw du am ngërëmal jëkkër ga ndaxte ngërëm yombul te sakkuwu ko ko am sëriñ bu mu faaleetit sëriñ bu ko moy bokkaale baaxul te benn sang taamu ko murit la muy bëgg a wax ak lam xelam di rabal sëriñ ba xam na ko wëllis tante sikkuma ko la dee fi nëbb ak dee yëg def te kenn yëgu ko lu dul ko nag suturaalu nit mu nettali ko teewul mu naa la fi xew teewul mu naa na nga def dafay suturlu ndeluy xew lépp dégg na ko bul fen te bul fen te bul fen bu la woo yow boo fa nekkee lu dul lay dëgg dëgg ba ko te bum la nga naa xam loolu nit du ko wax bul koy jëme ndox fabal ab yar bu mat jëme ko daf rek sama xew ma mbaa muy wax ni wóoruma kët kuy wax yu mel doo gis barke ni dali ko tànnal waxee nu ku am ab yar bu mat bu rafet nga fab ko def sab gobar koo jot nga dëbb ko ko ab yar la gaaye di gànnaa ko xeexe ba not luy waajalor gaaye jóg fab yar bu mat jëme ko nga duy gobar ak i jaasee kii di ki kenu yii donte day faji lor kon ban ba ñuy ame ko delloona sangam ba wëllis ay kenoo ki dibi moo teenu doy loo ko wëllis ay juddoo ki keggu lay mbir lay mbir lay mbir moo di wut ngërëmam daan ko ngir ku ko am maasam ga fekk si ko ngiram la boo ko amee gën waande nag jafe na loo ko jox yow lu dul sagru asal duy ko fabal taxol fab sa waa kër dellu fab saalal jébbal ko mel ku dee lii moo di ak bayiku sëriñ bi fam naa sama xol jox la yor ko bu wér fam naa xolub ku ma àndal jox la boolen yor buubal yu bon yi fi sun xol yi te dëkke ko nag yow rekk ban fàtte sun kër fàtte it ku nu jub seetal nu xol yi te xol boo fekk lëfulu la mooy dalal di génne te jël gentam ba def ko sa kër yow doy nga ndoy doy nga baayit doy nga it dëkkandoo def nan la ndoy def la baayit def la it sunu mbër xóotal nu sun dikki ak biirit te def nu sa ndab luy feesa feesa kiy mbir tey feesa ngeen sa mbir seetal nu leeral mu fab sun xol yi soppi wurus te jàpp sun bon ngir far koo far ba muy farafar seetal nu leeral mu fab sun xol yi soppi wurus te jàpp sun bon ngir far koo far ba muy farafar lëndëm bu nekk fi nun a cër bu nekk fi nun lindil nun bu ñu seeraati lëndëm ak i tër muy ngënee la ci barke gi murit yi sawar foo tollu dëgg bu muy yit xeejum ngërëm ba mu sax dogal mu dal yi wëg wërsëg yu nuy fege lor dal nuy solal mbubbi taw féexit jot ni sa mbër randul ma jóg na képp saakaala gi laxasoo te dog mbër ma fi ubbay lamb dootu fi gox moo tee nga jóg wër sa géew lamb maa la ni teg yow ba janj nga tey jii kuy bayit di la ëpp yaa fàgg mbër yëfi daa tëb damm seeni përëg yii deena yii ngi fi naa moo tee nu faj lu ji ndar kenn déggatul kenn mbër moo xam ni day sebu sax mbër yaa ngi nëbbu te naa kooki du may nooyal nga nooyal nga mbër yaa ngoogu ma kurumbu mbër moo fi gis danga koo tàggat ba muy sa fëdër nan xam na doj fekku fiy booleeti nem aku doj day fett fett ndeneen ñii soxlawul ku ko xar yàlla dogal lii te kuy mer mbir mu yàlla dogal doo nopp looti te foo tollooti booti naqar na nangu léegi te waajuy nangu teel nelaw moo mbëri te ngeen a jóg tey def ni man mi le far te ngeen a mboolem seeni mbir ni be sax te féetewoo yemu ay téere ki kees ki dar te ngeen a mboolem seeni mbir ni be sax te féetewoo yemu ay téere ki kees ki dar lu boole xam-xam bu koy gis mel ni kuy soga dal baa fii na xam kii moo di lay day dolli xam-xam di dolli jurte boo ko yëgee mu wet la gaa la ak suukar si ak li fi rot sa bopp nun noo ngi fii farloo ka naanaka ku gedd yamb banaanoo ak lemam du ko sax amul lemay jafe kuy am lem di gis ku la ko ku jóg tee sunu fi sàkku sëriñ na ko lew suñ mbir yi jub na te suñ may yaa ngi nii ni wesa nun dun lorooti bu soobee yàlla mii nu musal noo ngi ekitee na ki dàggaa kiy gëlee ma ki la suñ xol yi sedd na bii rek bi ci yàlla na fi raw te yàlla bun di sa ti gàccee ki tiisa ki la yàllaa nu noppal te kum noppal nga noppulu it bu jant soo nam fanaaney sant nun ba fajar te waxtu wuy fenk nam buurit te dal di gërëm tey sant bam soote lii kat moo di mbir mënu war faseeka bon fàtte dee rekkay waral nit a dew bu dul ko nag dee kenn dootu reew ak a bew bu dul ko nag dee kenn dootu am lu ko sax kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew koo xam ni xam na ni dee ngi ñëw te faw mu ñëw ni nemm rek ka ko war te jéema daw yëfi ndaw tuubu mooy ak yaru moo war képp koo mën a gis dee ngi dàqe te day jot ñépp kenn du ko raw lëf mat la tiisoo lu dul mooy yàlla kiy juru ay lëf mat la bëggit lu dul jub dong kiy juru yu loolu wériti wonk bis loo tedd tedd torox loo man manit te la bis loo wax waxit ni selaw loo sant sant ni mbas loo maare maare ni cam loo jaglu jaglu tawat addina yewu ci yow bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loola du mbir addina kër la gu ñuy dox jëm ca kër ga ca kaw addina kër la gu ñuy jaamoo ko sonne bu wér alaaxira di këru xiiwal lu bon du fa ñëw koo xam ne nekk na ci jub tey ba dee ca bu wér bu ëllëgee ñépp ñee koo ñee te bokk ko naw loo jullit mën a am te luy ñëru mbég yóbbal la dong na koy jaamoo kasam te di daw kër gi deful kër gu ñuy teddee ka tëddu di wéy ku man di ka dew bul fàtte mukk ka ka dew sëriñ baa ngi nii yoolub ku koy bay ngi toolam bi moo di ndigal yoolam bi moo di ngërëm ngërëm li làmboona nag mboolem lu dee fi gërëm ni kiy ngënee la ki barkee ki feree ki dërëm ay ñaari góor ak i taax ak jongamaa ci lamam te nde ëllëg lay jox ku nekk payam waayam lu bég bég balaa bég ruu garab ba mu gis taaxi wurus ya mu am foofee lu teenu xalam waayam ja dëgg du jéggee kay layoo ak a dox buy dekki day dal war gaalam mu teeri këram te kenn ci kulli waayam àjjanaa di këram ay jaayi koy waaye kii war naa feral bakkanam ku bëgg am léegi yoolam bi na ci ku dal toolam bi tey baya bay ngir yàlla tey gëm gëm ku wax ni man bëgg naa yoolam bi nag te toolam bi koo këleekat day fooka kaf du ko am ku bëgg lëf di ko wut kuy mus yu lëf di ko daw ku yàlla mu gis dal nay janoo ci mbiram ku bëgg lëf te wutul loolee mu bëgg bëggul kuy muslu lëf te dawul loolee te nal na xolam ku bëgg wut ku ragal daw wax ju wóor a ngi nii mandarga yi ku ko xam koo seeru dal di ko xam sëriñ bi kenn mënu koo nax ngir dafay yari xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam sëriñ bi kenn mënu koo nax ngir dafay yari xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam nun sunu yaboo faf wéral te jéema mel na ko saf te jéema def la ko saf te jéema sàkku mbégam ku wax mu dégg ku fas fas mu yëg la nga fas ku def mu gis la nga def kuy jóg mu xam fa nga jëm koo gis mu jóg ngir xaloo koo nax bàyyil ba mu dem buy dem di xam ni ka nax du kii du ko kam amul ku muy jigeloo boppam ak ay sori ka koy bësëg ka fa toolam bay bay xalayam loo def bu dee ndigalam loolaa di ngeen gis a jëf bul def lu dul ndigalam muslu lu dul ndigalam yaa man tegal gu rëy mboolam lu dul ndigalam ak lépp lu musik ak luy asaale maram yaa man tegal gu rëy mboolam lu dul ndigalam ak lépp lu musik ak luy asaale maram yaa man mayit may gu yéemoo yéemu guy rëy rëy tey ànd ànd ki mbég ak yépp xeetu ngërëm xëy yaa ngi topp ndigal jën yaa ngi topp ndigal kër yaa ngi topp ndigal yow mii di gis xalamal lal baa ngi topp ndigal mii baa ngi topp ndigal kër jox nga jën yi le ab yen yàlla jox na la yen boo sàgganee jën yi ngay gis gën la waa ji yenul jën yaa ngi nii yenu seenub yen te yow yenu woo sayan bilay sa te ay waarul jalul xalamal xalaate ngoogu tey yéene ka lott ci jëf li ngay tere ngi li ngay diglee ngi dimbulinu xam ne ame xol bokkul ak cër xol amaana mu fas loo xam ni cër du ko man yow ban ba yokkatinu li nuy defak li nu yéene wuute ngir danga gis ñuy def lu bon te suñuy xol mer ba dee teynu jombul ci sag tabe nuy fas tey manit lanu fas jombul nga may nu lu nuy jaamoo te yëkkatinu jombul nu xëy fasu yiw jombul nu xëy def yiw jombul nu xëy nekk yow jombul nga xëy jigéenu jombul nu xam sa ngërëm loo xam ni jomb nanu jombul nga dund nu dund ak jàmm dund gu saf safan wi gudd sunuy tan gudd ñépp tama yaa bay lu nekk baam say jaagi cant yu rëy sarax nu nag asakay loo bay te sant lenu yaa gas sa ki teen ak jax ba yépp ñu cos sarax nu nag asakay loo am te sant lenu miskin mu bon la amu nekk ak yow mu lotti ci jëf boo fa bugg añ bi yëpp baykat ya fàttaliku nu man tab sara ak sa muurum koor ak asaka kas ñam su des laa la ñaan ak as cagar wuyu nu man laa ji mag fay nga man ñii léblewul maywul sarax si daa la waral ñuy diglu dimbali nu man laa ji mag fay nga man ñii léblewul maywul sarax si daa la waral ñuy diglu dimbali nu koo gis dalay raasate wut lëf ci yow lu mu far bu kenn raasate bay far lëf ci yow miiti ku nam ma far ma farus xaalis te kenn bañ a for ak wax su dox di wax naa yaa ko wax fiiti lu dul nu yàllaa di buur ak war bu ko kenn foreeti mukk ci yow mii maa la wax liiti garam nga koy ronu ñoo koy far di jaaye ka mos koo gis ña koy ronu rek kay tax ñu xam kooti garam ña koy ronu ñoo koy for di koo gis ña koy ronu rek kay tax ñu xam kooti gerte ngi nii dañu koy yóbboo ka jaayi tugal te gaa yi koy baye koy def teenga yewwooti koo wax mu wax ka ca des koo kee waxit ka ca des ci yàlla huuhuuti mooy ñi nekk fi yow ngir ñoo waral ñu ñëwul fi yow di xam ci yow aslëf soppikul tuuti ay am naa yi am na koo déeyal mu déeyi ko nit xam yàlla mat na ko xam nit ñépp mat kooti nëbbul ku xam nëbb seetal dëgg ak ni yàlla nëbbu ki mbóotam tee nga waaraati nëbbal te nëbbu te bul fes doon te man nga ko sax ngay nëbbu faw sa bopp koofu seerooti na ñëpp am kumpa biir ak biti faw ci yow bu kenn yow ci say mbir foofu tollooti muural sa mbir faw yow mi bul muréeti sa mbir kóob ndabam amee faw ndox su muy fóote saxol bi génn ci soxnaa murit ak i kër ak doomati alalan mboolem lu koy tilimal xamal ni yàlla du nekk ak lenn lëf ci sa xol boo génnewul lépp lëf sa xol mu dëddu sa xol ku bëgg buur ak xeggam dal ngërëm na setal këram ga ngir bu setul buur ak ñoñam du ca dal ku bëgg buur ak i xajjam dal ngërëm na ca këram ga ngir bu setul buur ak ñoñam du ca dal te yàlla ab xol la def muy dëgg dëggi këram xol rekk a di wàccukaayam dëgg dee ko setal farlul ba waxtu seetee xol bi teg pinset ci lépp lépp lu ko mooy lii daala dig rafetal bul bëgg yàlla ba noppi bëgg lépp lu ko mooy wax wàqi moo gën a bon as gor du wàqiil jógam ca gaaya ba mboolem gaaya jóg la xar di sant kay bég ci yow ngay def ku lii defuwul bokkal ca gaaya fa seeni kër di lekk a bay di waaja kay soowa kay war seeni fas di dawal mbaa gaaya gàddaaye seeni kër di topp ndigal bu jaaba kay daw ba am ñuy topp seeni ndigal bokkal ca ñee mbaa ci ñii ngir ñàkk féete du mbir ku féetewul kenn baaxul ay mbiram rafetul jaayal bakkan bile waa ji ndaxte dee bu jotee ku deewulit gis lu dee gën jébbulul bàyyikul defam tubaaxul bàyyil yow mbaa nga def lu ñu xam ñàkk di laabaka laabal waaye bul tilimal jàppal sa dund bi dundal lépp ak jëf te waxtu woo defu lu rey nga waxtu wa yow ngir waxtu jëmm la jëf nag moo di ruuga njagam defoo ci waxtu way ab ëkk kon bu taxaw te waxtu woole ba lu kët bu saa taxawee nga seeru waxtu wa jóg ñëw fay la woowale yiw te yaa ngi nii waxtu yaa ngi nag di romb fi yow loo def ci ñoom it ñu ak loola yóbbu ko kaw loo bëgg laajteel la gaawal ci yeble ko tey giseen loo lépp liwul ak ndox la mbaa ci ndaw te gis nga waxtu dee taw lépp loo bëgg a am doo def lu dul fab ko dal koy tax ca boobale taw loo bëgg tax ko mu sax loo soxlawul bu ko tax. ku tax lu bon bu saxee day koo xalaata ka daw tuubal bu wér la nga daa def lépp yow ci lu bon ngir tuuba fii taxa jub bañ tuuba fii taxa bew tuloomaan bala sànni muy waree ba fi saa si boo ko tuubee te sellal dal di jot ku la raw te dal di jot yépp yi woo xam ni daana la raw te dal bokk ca gaayay dem ci péeye ñëw lii waaye nit du ko jox boppam te gaaya ko am dañoo bawoon seeni ngir ak yàlla ñoo gën a ñëw ca topp nag seeni sang yàlla mel ni ñu dee di sant aw ndigal yeewul te roy ñi yow ñoo te xam ni dafay yuy def ko yow ni lu yuy lu dikkulit tey xaloo ñëw def ko yow ni lu ñëw ñi lay ñi la dul mooy ñépp ñoo xaw a yam koo gis ci ñoo mag la muy def leemu wéy du taxaw ñi lay ñi la dul mooy koo ci gis la mu def day mujj dellu ci boppam mooy la yeewu la yow bul teg ci jëf ju rafet joo xam ni ji du sa jëf bul mer ci ak mooy budul sang mooy bàyyil yëfi ndaw ku def lu jub ak ku def loo xam ni lii jubulit defal lu jub yow te sax ci jub royal ña ca kaw xamal ni ñépp du jub waa ji te ñépp du bon ku man di baax ak bon baaxal ba dee fi la naw nëbbal sa mer faw muslul kenn xam ko ci yow ku ñëw teral ko bu jekkee muñ layit bu ko jëw ku ñëw fi yow bu ko fuuyoo kay fexee wanu ay ku dikkulit bu ko jekki wax lu bon na nga daw jàppal sa njaambur gi jàpp njaamburay lu rafet noppil te jàpp te bul xiiroo ka matt ka baw na bug ba mag feeñalug jub moo rafet mata def boroomi géej jën bu dee daanee ka gaañe du raw boroomi géej ak i géej jën day lewet mu ñu lor ñu xam ni yaa ngee ci géej jën doy na sang du bew muslul lu lay taxa bon muslul lu lay taxa bew sëriñ bi dàkkul mboolem luy waral bona ñëw sëriñ bi doy nga ma doy naa la yit ne fegal nu woppaki dee fawan ñu bon fu nu ne sëriñ bi doy nga ma doy naa la yit ne fegal nu woppaki dee fawan ñu bon fu nu ne doylul nu wëlli fajkat ak lañuy faji nit te may nu mucc wér ak dund ak ngërëm yu tane njagam dañuy fegi lor yaa dàq fekku ne lor man ngaa fegi lor te doo jam aw yaram ni gone loo xam ni day ruur a kay lor nit na jëm fu nu moy man jàpp naa la defum ñag wër ma kapp fu ne ngir yàlla ak yonnenam ak bépp lar bu ko gëm musal nu guddal sunuy fan may nu barke bu ne nan mucc faw bu wér tey musle faw bu wér tey sax bu wér ci ndigal tey sant cant gu ne fegal nu ay wépp ak waa ay wifeg gu rafet dàqul nu luy walle ak kuy walle man ne boo geesu wan sem saa ay dem te dootu ñëwit bàyyi sa nëbbu bi yow yaa dàq nëbbu ku ne geesul te ñaanal nu geesul may nu sax lanu wax ku ñaane day ku amul yow am nga may yu gëne yàlla la fa boole xaw ak gaaye fekke badar ba dàq seytaane ak yéefar ya dàq ku ne tey léegi kenn nga kuy mbooloo di taj ak aw muy wéet akay wéetalub sangam ci lépp lu ne doo nekk wéetati ngir xeetoowu laa ki murit xeetu wulaa ki sëriñ yow kenn niwul ba nga ne dooñ